bismillaahi ma jóg sant borom Tuuba bismillaahi ma jóg santati borom Tuuba bismillaahi ma jóg sant borom Tuuba ngir moo nu tàggaleek ay sant borom Tuuba ngir moo nu ay na tooki musiba muri yi ñëw leen ñu màggali Tuuba muri yi ñëw leen ñëw leen ñu màggali muri yi ñëw leen ñu màggali Tuuba muri yi ñëw leen ñu màggali Tuuba bu leen ma naan koron la ma tere dem Tuuba muri yi ñëw leen ñu màggali Tuuba bu leen ma naan koron la ma tere dem Tuuba santale ko boromam jar na dem Touba nam korola nga won Touba waaye Serigne Touba moon aaral Touba képp ku gantal magaluk Serigne Touba ngala boo faatooti bum jublu Touba képp ku gantal magaluk Serigne Touba ngala bu faatoo bum jublu Touba sant ko boromam lewoti moom ca Tuuba suñu gore suñu faatu dana dem Tuuba Iblis di mbokkum korola ak musibaam Iblis di mbokkum korola Iblis di mbokkum korona ak musibaam tey ku ko daanoon te jeewal mooy borom Tuuba Iblis di mbokkum korola ak musibaam lii ku ko daanoon te jeewal mooy borom Tuuba dëneen iblis di mbokkum ko la musibaam cey ku ko daanoon te jeewal mooy borom Tuuba jëleen ñu santati gaa yi tantati ñëw leen ñu santati gaa yi tantati noonu Sëriñ Tuuba gantooti bu leen gantoy gàttal mbirum Sëriñ bu doon nga tooy gàttal mbirum Serigne Touba mu demee géej du del si Touba bu loon nga tooy gàttal mbirum Serigne Touba mu demee géej ba mu demee biir géej du del si Touba dafa jaayanteeg boroomam ba am fi nan jaayanteeg moom ba sax fa Touba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Tuuba pol wolof nasaraan pol wolof bambara ki ku dem ma dem ku tukoroor ki joola ku dem ma ku des maa Tuuba di soor lay waajal foof dem ba Tuuba jaral na ma korala ba faatu dem Tuuba bisu safar lay waajal dem fa Tuuba jaral na ma korala ba dem Tuuba jaajëfeti yaa Seyxuna Abdul Xadimi nimatuna yow yaa nu jàmmal ba tax ñu naan jaajëfeti maam borom Tuuba jaajëfeti yaa Seyxuna Abdul Xadimi nimatuna yow yaa nu jàmmal ba tax ñu naan jaajëfati maam borom Tuuba sant la war naa ba daa te sant Seex Bamba ak Muhammada yow buur gërëm na la ba jox la sañ-sañ yow Sëriñ Tuuba yow Sëriñ Tuuba jaajëfati yaa Seexuna Abdul Xadim nimatuna yow yaa nu jàmmal ba tax ñu naan jaajëfati maam borom Touba Rasuul moo la tànn yow Serigne Touba bur yàlla teg la ca kaw nga jëf ba ñëpp naan aw jaajëfati maam borom Touba Touba di ngeen nga dëkkuwaay def na la ngay sunu weer waay yàggan ci ñun ndey ak baay jaajëfati maam borom Tuuba jaajëfati maam borom Tuuba jaajëfati jaajëfati maam borom Tuuba taxawlu na yaa na Sëriñ Tuuba na defar junni bir baat nan aw baana wa hablalah bil musa ànd ak Sëriñ Tuuba ta taak ak buusa yenn sëriñ bi boole dimbali defan tafeex